ay simili yu néew ñu jox leen xibaar yu wér te wóor les minutes de l'info. grand ñu leen di delloo ziar. waaw ñu ngi leen di delloo ziar bu baax euh, man la Aliou Ndiaye nekk fii Pikine euh, yor fi magasin quoi. Euh, grand na nga gisee suukar bi nga xamante ni yokk na ba bitig boo dem du fa jënd sax ñu ne la amul en tant que sénégalais. en tant que jaaxle rek ak mu metti ñu trop ah parce à partout lañu am mu am ñoo génn dem fenn donc euh, dañuy ñaan la gouvernement ñu def si ay itte wàññi suukar bi ba pare euh, société bi nga xam ne moom moo ko yor mu def si itte moom it moom moom Mimran la xawma waaw mu jàpp si rek parce que sénégalais yi sonn nañ trop ah voilà parce que tamit xaalis bi ñuy génne di ko yàqate euh, mu war a demul fu mu war a dem loolu tamit lu am solo la dañ ko war a dugal fi nga xamante fi lañ ko war a dugal parce que tamit euh, bu dee si côté euh, football bi la bon loolu tamit kenn mënu si wax dara benn côté peut-être c'est un peu exagérant mën nañu wax ne exagéré na mais euh, mënuñu ko bañ parce que mbégte Sénégal yëpp la quoi voilà mais nag gouvernement bi war na gën a góorgóorlu daal war na gën a góorgóorlu parce que tamit kii na trop quoi métti na trop ah métti na trop parce que tamit dañoo war a nekk place sénégalais yi nga xam ne ñoom ñooy dund loolu pour ñu mën a xam loolu mais nag. Euh, di yàqate xaalis yi si yeneen yi nga xamante ne amul solo bon di ko politiquer ak yooyu yooyu conséquences yi lii lay jur quoi voilà. ah waaw wax dëgg yàlla moom dund bi moom cher na dund bi seer na métti na dëkk bi métti na vraiment dëkk bi métti na dund bi cher na euh, métti na daal li may ñaan nag euh, ki njiiti réew mi moo jéem a wàññi dund bi wàññi courant bi wàññi ndox mi oyofal ko ba mu oyof. dimbali askan wi ndax askan wi sonn nañu xaalis bi moom wax dëgg yàlla gaynde yi sax moom vraiment ay jàmbaar lañu li leen Macky defal kontaan nañ ci waaye nag defoon ko ci dund bi nag moo nu gën wax dëgg yàlla ndax dund bi seen dëkk bi metti na ngay xëy gis ko xëy suba day dañ dañ dañ dañ ba sonn loo am toggee ko lekkee ko naanee ko mënoo dajale dara dara mënoo koo dajale jamono bi metti na torop torop waaye lu waay amoon amatoo ko lu waay mënoon mënatoo ko ndax dund bi cher. ban message ngay lancé ci état bi. état bi moom li ma leen di lancé moom li may lancé moom état bi ñu wàññi dund bi wàññi suukar si wàññi ceeb bi wàññi diwlin ji wàññi courant bi ak ndox mi ndax askan bi moom loolu lañ gën a soxla li gën a soxla moom la ndax dund bi dund bi moom metti na vraiment metti na trop trop trop trop. waaw tax ñu yokk suukar te bàyyi xorom suukar xorom seen ñaari bu jaayee bokkoon ndey ak bàyyi. barki Serigne Touba Mbacke et puis yooyu sax dafay war a jeex grand nit ñi dañoo sonn ñun soxlawuñ lu dul dund dañuy xëy di dangti dangti ba jant bi soo kon nañuy wàññil dundu bi askan wi sonn nañ sénégalais yi sonn nañu may muy man muy yow muy keneen ak keneen ñëpp a ngi yëg mais nag sant yàlla mais Macky Sall na jóg ci askan wi quoi moo gën a moo gën a rafet daal loolu kay moo la war a xamal ne gars yi jaxase nañ taaxuraan bi ak alxuraan bi dama yàlla jéggal waaw li tax ñu yokk suukar bàyyi xorom looloo ma jaaxal. ndax bu ko ñu yokk ah. waa nañ yokk xorom ku yokk suukar yokk xorom ndax ku doole cere yokk ñeex sëñ bi barke Serigne Touba Mbacke xam nga problème bi lan la mooy euh, nit dangay ngay am yërmande buñ la jiitalee non da ngay am yërmande njiit moo mel noonu bi ci des mooy population bi tamit nañu góorgóorlu liggéey ak liggéey nag day ànd ak liggéey toog rek di wax yorul kër nguur gi na wàññi dund bi mais population bi tamit na nañu liggéey góorgóorlu ñu jàppalante sëñ bi su ma yoree junni nga abuma ñeenti téeméer. ma gantal la barkib Seex Ahmadou Bamba Xaadimu Rasuul man Ibou su ma la wanee wala bu subaa su ma xëyee du ma am nañuy jàppalante boo ree 1000 francs bokk ko lii rek mooy àdduna sëñ bi mais suukar si nag moom Macky Sall nañu dimbale ngir yàlla rek wàññi ko quoi parce que dutee ngi jooy café Touba ngi jooy sëñ bi kon wasalaam maa ngi def. dañ koy ñaawlu loolu parce que loolu Sénégal métti na métti waay boo xam ne bu ñu yokkee dund bi rek day feeñ ci benn côté parce que am na ñoo xam ne bu ñu ko ñoom du leen déranger parce que mën nañ ko jënd. am ci ñoo xam ne bu ñu ko yokkee dañu am problème pour jënd ko waaw ndax dund bi daal moom nu mu gën a mën a wàññeekoo moo ñu gënal. yokk bi fan nga yaakaar ni foofu la. ah bi ah ci ñu yaakaar ne fan la ah, ci ñi ko sekk rek entre euh, ki koy jaay ak entre nguur gi ñoom la rek waaw ci seen diggante la de. boo yeewoo dem bitig ba laajte su ko ñu la amul lan ngay yëg. ah dina metti torop ndax faaw ñu xëy ndékki. am ñoo xam ne dañuy ndekkee suukar am ñoo xam dañ koy añee am ñoo xam ci la ñuy liggéey bu suukar amul mu manqué day gën a metti ci ñun kon nag luñ mën a am ñu wàññi ko euh, ci nu mu gën a yombee ci askan bi ñun moo ñu gënal moo gënal ñëpp ak dund beeg yëpp ñun daal ñun loolu moom la ñuy wax suñu président Macky Sall ah ñu ngi lay diis lii te xam naa nga lijjanti ko du dara ci yow ndax Euh, bu dund bi yombee rek dina gën a yomb ci ñëpp nga xam ne comme boobaa kenn dootul sonn mais daal loo ñu mën a jàppale ci dund bi moom moo ñu gënal. no lool du yoon lool du yoon suukar si moom gaana pour man quoi suukar war ñu ko yokk ndax suukar mooy safal quoi ndax boo xoolee léegi nit ñi boo xoolee léegi lépp lu ñu jëfandikoo suukar da si neex quoi xam nga kon suukar bi ñu ko yokku xam nga dañ ko war a wàññi waaw ndax suukar moom ah ko ñëpp ko ñëpp ko utiliser jaaxal café jaaxuli crème dañ koy soxla en plus tamit ñuy jaay jus dañ koy soxla ak ak leneen ak leneen quoi moo tax sukar moom ah moo ah, koy wàññi quoi. waaw rafetlu wuñ ko nag rafetlu wuñ ko mais à condition parce que tamit boo xoolee suukar bi bu seeree dañuy xool ci kaw d'abord ci kaw dañuy xool xam naa ni foofu lay seer mais ak nu mu mënti demee rek. état mu am am na fonds yu fi nekk yoo xam ne mën nañu def tout pour ñu gën koo wàññi vraiment man loolu daal laa gis instant bi mën na wàññeeku bu mënta wàññeeku à 100 pour cent tamit mu wàññeeku. dafa war a wàññeeku sax parce que jël nañ lu mel ni Coupe d'Afrique instant dëkk bi dafa war a neex quand même. waaw vraiment dafa war a neex moom mais Coupe d'Afrique bi ñu ko jëlee bërki démb la tamit man xam naa li ci kanam moo dàq daal man xam naa ne gars dañuy wàññ dañuy yokk affaire nii rek mais yaakaar naa ne dañ koy wàññi léegi léegi gis naa ni actuellement nii Sénégal dem na ca kanam et puis tamit y a des yoo xam ni mu ngi dugg actuellement au niveau du Sénégal te ma gis naa ci njariñ loo xam ni man gëm naa ni lépp dina baax incha allah. yaakaar ngeen tuggee si. non billaahi lépp dina baax lépp Macky daal na ànd ak xelam te xalaat instant bi nii il est en de bien réfléchir par rapport ak démb li mu doon doxalee ak léegi nii nii man xam naa ne mu ngi xalaat entourage am ñi ko doon yàqal na ci ginnaawam xam naa ne tamit jël na ci matuwaayam bu baax man bu ma sañoon ñu ci bari ñu ngi critiquer liñ leen may liñ leen may buñ ko defoon ci. jar nañ ko waaw dëgg la parce que boo seetee tamit keroog bi ñu liñ liñ liñ doon wut ay at. ce qu'on a de plusieurs années ñoom ñoo ñu ko indil comme man gis naa ni wax dëgg yàlla keroog bi ñu bi ñu nee bi ñu jëlee coupe bi kenn ku ne kontaan nga kontaan goo xam ne tey jii li nekkoon sa xol yow boo yoroon àdduna ak biiram di nga leen ko defal. comme tamit bu ñu demee ba defal leen lu mel nii man dama koo sax xeeb. te boo seetee tamit ñoom li ñu leen defal ñoo ko fi indaale parce que indaale nañ 3 milliards yoo xam ne manqué wul lu bari comme daanaka loolu lañ jël séddale leen ko et puis tamit. kilo 700 la te dafa seer quoi bu ñu ci mënoon a dimbale ñu wàññi ko dañu ci baax lool quoi waaw parce que instant yi da ngay jaay ba wàcc mooy loolu quoi xam nga léegi bénéfice bi nga waroon am daanaka day wàññeeku waaw te bu ñu si mënoon a dimbale nag ñu wàññeeku dana baax lool daal. no daf may métti daf may métti quoi parce que ak nu man di demee rek ñu dañu nekk ci réew boo xam ne dafa kii daal néew bu néew doole la kon nag dañoo war a jàppale wàññi kii bi quoi li ñu mën a dimbale askan wi mooy ñu wàññi li ñuy dundee buñ ko defee rek danañ mën a dana baax daal waaw non noo non yàqu si dara moom wax dëgg yàlla moom yàqu si dara quoi teewul moom client yi ba léegi ñu ngi ñëw quoi waaw. mais yow yaa ci de. waaw man mi daal man maa na ma si doon gagné daal man maa maa si gagné tout noonu daal waaw waaw ci ay simili yu néew ñu jox leen xibaar yu wér te les minutes de l'info